Euh, lu ne nag ñu ngi koy def ngir daal di mën a randal feebar boobee nga xamante ni sax ay weer yi xamante ni moom la ñu daal di génn euh, daal nay wàññeeku woon foofu lool ba ñu daal di nag dooraat activité yi liggéey yi ci usines yi waaye tamit école bi daal di tàmbaliwaat loole nag ginnaaw ay weer goo xamante ni daal nañu dafa bër foofee nag ci duwaanu France nag président bii di Emmanuel Macron euh, mi nga xamante ni nag fii ci réewum Sénégal dañoo jàpp ne rek président Macky nag bépp jël ñeel mbas mi di Covid 19 rek daf ko daal maanaam ci ba mbas mi dooree ci ñaari fan ci weeru mars ba léegi fii ci diwaanu Sénégal lay say su rek bu président Macky Sall jëlee benn ndogal dafa fekk ni rek président bu France moom itam jël na ndogal boobule loolee nag nemmeeku nañ ko ci discours à la nation yi waaye tamit décision yu ci bëri nag ci duwaanu France lay daal di jógee ko loolee nag nit ci daal di koy jëloon defoon ko ci seen bopp te itam amul leen loo xamante ni itam mën nañoo wan leneen waaye naka bi lay yoon mbas mi di Covid 19 ci diwaanu France ñu daal di nemmeeku woon ni itam ni wan wàññeeku na fa bu baax a baax waaye nag randu googu nag mu mel ni ab surprise dañu am ndax mbas bi dafa jékki-jékki de commencé waat foofu daal di surjouir ci yeneen yi ay dëkk foofu loolee tax nag ba tey jii nag ginnaaw ab conseil présidentiel goo xamante ni Emmanuel Macron amal na ko ak yenn ci ay jëwriñam ca la daal di jël ndogal ne dañuy amal ci aljuma suba bu ñuy jotee lañ ko war a door mu daal di war a nag soxal nag dëkk yi nga xamante ni moom laay bëgg lim muy Lille Rouen Saint-Étienne Toulouse Lyon Grenoble Montpellier Marseille loolee nag daal di aju nag ci bu 21h jotee ba 6h du matin nag lépp lu déplacement foofee dañ koy daal di tere ci diwaanu France ci dëkk yi nga xamante ni moom laa fi lim moom nag réewum France nag jamono ji li nga xamante ni moom moo jaaxal ñëpp mooy ne rek naka la mën a inspiré woo euh, ci wàllum euh, Sénégal euh, ci ñeel nag mbas mi ak couvre-feu bile ndax li ñu jàpp rek mooy nii rek saay su ne réewum France moom mooy daal di jël ndogal réewum Sénégal topp ci ginnaawam wala boog Emmanuel Macron mi nga xamante ni Macky Sall sax daanaka mën na ko jur moom mooy jël ndogal bu ko soob waaye nag Macky Sall saay tourné dafa naan nañ ci topp loolee nag moo jaaxal ñëpp ndax bi yoon dafa mel ni réewum France ñoom ñoo daal jël ndogal ne dañuy topp réewum Sénégal ñu daal di leen dicté nag ñu war a doxalee ci mbas mi di Covid 19 mooy wàllum couvre-feu bile ndax fii ci Sénégal defoon nañu ko loolee nag bi mbas mi daal di randoo ñu daal di koy yëkkatiwaat waaye nag li nga xam ne mooy rassemblement yi nga xam ne sax tere woon nañ ko itam fii ci diwaanu Sénégal ñeel nag wàlluma dajaloo lu ëpp six personnes foofee nak ci diwaanu France ñoom juróom-benn nit la ñu ne boru ñoo dajaloo muy ci kër ya ca mbedd ya waaye xew ak fet bi nga xamante ne mooy Toussaint sax di waaj a ñëw loolu nga xamante ni moom moo samp ci mile mbir ndax li ñu tàmmoon di gis mooy ne rek euh, say su ne réewum France mooy jiitu euh, Sénégal daal ciy topp ci lépp wàllum investissement waaye tamit euh, ci lépp ci li ay ndogal loo xamante ni président Macky Sall war na ko jël faaw rek kii di Macron daal di joxe avalam ba noppi rawatina ci mbas mi nga xamante ni nag décision yi ci jot a jël sax dafa dem ba dafa daal di sax ëlëm ñëpp te itam ñëpp daal ci teg seen bët ba amul benn laam nag moo mel ni ku topp réewum Sénégal ñeel couvre-feu bi nga xamante ni ngir xeex mbas mi la di Covid 19 loole nag nekk ab laaj goo xam ne samp nañ ko. ndaxam du Sénégal wala bokk France dañuy waaj a xam ne réewum Sénégal itam yenn saa yi ñu jël ay ndogal yu baax.